donc ils se sont retirés dañu budee salle bi comme ni ko maître Massokhna Kane waxee woon euh, kii di Yaa Moussa rappelé ko kon génn nañu saal bi actuellement ñoom ñaari camp wu avocat yi waaye mu am ay ay mbir yoo xamante ne xaw naa reetaan lu sax euh, Mouhamed Diallo mu ñu koy jottali moom bi ci biir saal bi Ndeye Khady Ndiaye nee na Adji Sarr daf dompat ne ma ne ma baal ma àq <laughs> Adji Sarr nee na ko na ko na ko na ko ndey xadi baal ginnaaw ba mu ko dompatee euh, léegi maître El Hadj Diouf daal daal dinay ree ree yu am solo xàqtaay na fa daal di weddi nee na loolu ndey xadi njaay wax amul euh, teg si nag ginnaaw bi ñu doon xaar réaction Adji Sarr Adji ca dara Adji eh, Adji